aca mbokk yi ñu ngi leen nuyu di si Adam mbégte bu baax tey nag ñu ngi fii ci Maris combat maxi bu mag bu war a am ci diggante waa Diamaguène ak waa Koutounou Diender ñu bal mbëggal bal ba ku ñu jox góol bi la mu jàpp doxalal fu muy paas paas na armée bu ngiwal moo téye bal bi noonu ku muy joxe armée ko <laughs> يفتحون الكرة في الملعب نتحدث عليك تي يقول اليوم لوران جاغو pousse a balo kom jox su njata paas su njata bal bi paas kan kan la koy jox sos la jox sos jël contrôle joxaat su njata su paas na bal ba kum paas tulil dafay génn wala lay pitaago numéro 2 dama dimbali Soundiata téye bal bi noonu duut na ko ku mu duut ku mu jox ah centre waa jàmm ga ñëw téye bal bi jox noonu sos sos jox na Soundiata Soundiata ku muy paas ah Forous déet attention attention ah waaw waaw Tori si nga Tori moom moo na ku mu paas bi mooy dem paa bi demal mu ngay matu ci kanam jox na ko ah day duut wala ah, Garo Gare Garo Gare moo dugg beneen du dool be xeexol bi Garo Gare yafta alayka Liss Ndiago arme bu ngeewal ñoom ñaar ñoo war a daje ci latéral bi ak bi Liss am nga client ah bu ngeewal ak Liss Ndiago Liss am na client tey Liss am nga client arme am nga client Liss Ndiago nga dajel Gaston Production doole jën ndox la waaye doole internet amoon na la bés kolos bi ah mu ngi laaj ndox Liss Ndiago bu del Liss Ndiago nga laaj ndox ah. Liss Liss maxi bi 2000 la amagul Liss Ndiago laaj ndox armée Jamus moo téye bal bi noonu kuy dóor gaaroo gaar mooy dóor mburul ci la femme mooy dóor noonu mburu Cheikh Naar bi mooy dóor noonu coup franc bi la numéro 10 dosaar numéro 10 ak kan Tony Senior ku koy fa taf Fourouz Fourouz mooy taf Tony Senior noonu booy jëndee rek xaw ma leen waaw moo ma jaaxal man mi xam miinu ma leen. booy jandeer man mi am ñoo xam te ne miinu ma leen. mais man tey dañuy doxal su ma duggee ci arab bi nga dugg jolof bi yaa xoolu bi alayta tasi aw doono lim dóor dafa kawe ko fran bi daa jàll tuus dañuy tuus bal da paas day tuus bal bi noonu tuus doxal tuus nan bal Sunjata Sunjata kum paas Forus la paas Forus jox Sunjata paas joxaat na ko def long paas ci kan ah ah téye na bal bi dara amul arbitre fot fot la bal ki fot bal bi noonu tudd buuba la buuba la tudd may lim tudd turu mbërëm direeku xel mel ne ci imamay bi imamay la ne xel mel ne ci imama bi war dóor tubaab Sunjata téye bal bi coup bi war koo dóor noonu paas na ko kum paas Mbengue Mboro la ko paas attention Liss Ndiago Liss deet Armé Armé moo yor bal bi noonu kum paas dosaat numéro 17 doxalal day doxal ilaata kum jox gaaro gaaro jox gaaro gaar mi sóor la mun de mun na fommi de li Tony moom marqué mais daa yàq bal bi paas góor bi ku muy jox jamut lay jox wala jàpp na tullil tullil bal bi loolu mooy tullil gaaro gaaro moo contrôlé bal bi da ko contrôlé mu rëcc ku jël bal bi noonu waaw kum yaxi yaxi mbaam mi loor yaxi jox na gaaro gaar gaaro gaar paas na king génn king génn doon king ak Laurent la king la ak Laurent <laughs> eh king Laurent laal na bal mu génn la latéral Laurent Ndiago eh Laurent Eh? il a fait loola. léegi Malick Ngom waaw ah, lii da nga war a sax deux mois di organiser lii dafa neex. Malick lii sax war di organiser lii dafa neex. dara de kurata bi Laurent. Laurent yàlla bi kurata. Feusel Malab. corner pour kan garo gar centre ballon ci suuf la ko dóor Liss Ndiago kale bal bi noonu Liss attention Liss attention Liss day dem. Liss day dem Liss day dem day dem paas na ko paas sos sos teel bat bi ah. du sos de kii paas sos paas na ko paas Liss Liss kom dugg na Foruz na Foruz dugal na Foruz moo dugal noonu Petit Baye Fall ah Petit Baye Fall eh Petit Baye Fall moo dugal Petit Baye Fall moo marqué à ballon Petit Baye Fall marqué à ballon sa tombi tombi jamus mooy laaj ndox boy sos mu ngay laaj ndox Ahmed sama tooma doomu yaay <laughs> ndeysaan la lan la matu lan la tafa tafa bu lis njaago maa ngi koy béggee sama xarit bi mu ngay supporté lu neex doomu matu la Petit Baye Fall moo dugal Petit Baye Fall moo dugal Abou Ndiassé numéro 2 moo téye bal noonu Abou Ndiassé sos moo téye ba sos abalo sos ku mi sos gaawal gaawal fa da nga a gaaw du la xaar ngay ngay ndambe ku téye day téye Laurent mooy jël tuus Faux rouge day paas wala Kumpaas Liss Ndiago Liss Liss paas na Kumpaas Fourouz Fourouz def na longue passe fële ci Abou Ndiassé numéro 2 Abou Ndiassé numéro 2 il a fait sos tura kuy centré sos wala attention Abou Ndiassé centré attention door eh góol ba jàpp na bal ba nam ko jàppee dafa neex sax loolu jàpp góol la de kii góol la de kii góol la de ah, ah! sama cameraman nee na góol la <laughs> Tony Junior mbëkk na gardien ba moom foog ne lépp mbëkkante la kum paas Liss Ndiago moo téye bal bi Liss Ndiago moo koy da koy da koy double wala day paas Sunjata Sunjata la jox Sunjata la jox feu rouge feu rouge Sunjata Sunjata waaw Abou Ndiassé numéro 2 attention Abou Ndiassé kooku la Petit Baye Fall su njër ay bal tuus loolu de dóoru mbër la dóoru mbër la dóoru mbër la kostu ngi noonu Elzo Elzo ngi noonu kostu bi na fubal gaay na ko du fi amee nee maa ko jaay fekk man xaw ma sax ah. ah. naam ko ànd moom. waaw sos moo téye bal bi noonu sos attention xale sos Sunjata Sunjata armée moo dóor bal bi armée ko Tony Senior Tony Jamus Jamus jël na bal bi kum jox Forous Forous jox na Abu ah, Ndiasse <laughs> Modou Anta Armel mi daje waaw eh yaxi mbamara mu mbëkk ku jee tooni tooni mu mbëkk tooni tooni mu mbëkk paas na ku mu paas da koy téye la arbitre na fot arbitre na fot kuy dóor bal bi noonu kuy mooy dóor bal kum koy jox sant na ko paas jamus moo jamus yaxi yaxi mbambiloor Liss Ndiago def longu paas fële ci Sunjata sos tura aja Sunjata mooy dem jël ko ku laal bal góor bi gardien bi Garo Gar attention Garo Gar. kumpas. mu doon def kumpas mais gardien bi nag gardien bi xamee naa ko mais xaw ma tur bi ah. sànq xamoon naa tur bi dama ko. Liss Ndiago <laughs> cee armé na latéral kay dajee bi nag. ak forme bi état bi. fan yii mu ngi cee non macha allah macha allah tey armé tey mag si le eh, production. loolu yàggatul sax. bu ngéwél tey mag. Eh, waaw. Uh-huh. waaye octobre de feu mooy octobre de feu ndax octobre ay lamb yu neex a ci am premier le huit ak le vingt deux ay lamb yu doy waar a ci am macha allah mi ngi noonu ñaabu ndaw mooy bëre ak ki nga xam ne mooy Bour Sine ñaabu ndaw Bour Sine ah attention Sunjata Laurent Laurent Ndiago le balo paas ba baaxul jox na ko ki gaaro gaar Tony oh gaaro gaar déggoo nañ attention kee kan la jamus la jamus kële kan la Abu Ndiasse 2. Abu Ndiasse 2 eh sos sos da nga retard eh bal ah jamus kay daa mel ni moom naa jamus kay kenn moom beneen bala ngi noonu. bi nag bul euh, euh, xam leen ne mooy arbitre mooy waaw mooy arbitre mbër te tey match bi moo ko si si. waaw ñu ngi koy waxaale kay. Euh, luy loolu yow Elzo. lu bëgg ci loolu. moo ma jaaxal tey waa waa jaase mooy tuus. waa jëndee rek jàmm gën 1 0. 1 0 moo def paas bi tey nag bawal bawal yi. Uh-huh. waa yëmbal ñoo leen door 1 0. démb uh-huh. reporter yi waa géej waaye leen door 2 1. démb encore Petite Côte bi ñoo door entraîneur yi 3-0 waa Pikine ñoo door waa Yoff partiro bi. dégg naa neexoon na Pikine euh, neexoon na trop. kon nag yéen ñu ñuy suivre ci Gaston Production résultat yi noonu la deme dañ leen di wax affaire yi ni mais suba incha allahu rabbi Grand Dakar dina suyee parcelle dinañ suyee. wax leen ko. Stade Ngor. Stade Ngor la suba. Grand Yoff waaw suba Grand Yoff la Grand Dakar Parcelles Ngor Estatu Ngor suba incha allah yàqi mi ngi noonu. yàqi Mbambilor rek attention. jamus waaw wow. jamus la vous êtes de jamus cey jamus mi kii jot na de. mais njool mi est-ce mbër la. mbër la jamus bëri kan la Jamus. Jamus waaw bëri na trois combats ci arène bi. ci Jamus. waaw Jamus mi de défenseur dëgg la comme Kali comme Kalidou Koulibaly wala Cheikhou Kouyaté. kee kan la Libidor a daan wala ku daan. Farouz Farouz ak Libidor la woon. Farouz sax fan mi ngi ci état Tony Tony doole jaa bëri. doole jaa bëri paas na ko attention. dugg na. Oh, attention attention loolu ñaar les kër gi booy de. démb gars yi moo ne li muy def na Modou Anta sa reportage bi hmm. ma leen nag làmb bokkut ak football. football nañ ko jox Malick Thiandoum. wala ñoom Cheikh Tidiane. wala ñoom Malal Junior. attention Liss Ndiago. Liss. armée bu ngewel attention Forous. eh Zé see Baye Fall day génn bàyyi na mu génn ñaari bal ñaari bal dugg na ñaari bal dugg ci terrain bi ñaari lii mooy footballu mbër eh, eh. attention eh Koufra attention nee na ko taxawal ci bal bi daa bi deux pieds la wax parce que ñaari bal daa duggandoo ci terrain bi non deux pieds bi da ngay bañ na ko bàyyi defal doucement da ah. ko mu def doucement quoi. ok day paas fu muy joxe. ah <laughs> macha allah jóg génn na.